aoudubillahi min sheytan rajim bismillahi rahmani rahim wasalatu wasalaamu ala asrafi alanbiyahi walmursalin seydina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwan tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokki yàlla bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare ci bis bu tedd bi di nuyu bépp jullit bu fi teew di jaajëfal ñëpp tey nag xam naa defuñu lu lu lu yëkkati ay kàddu cant ak ci ngërëm jëmale ko su mbooloo mi ndaxte bis bi doon na bis boo xam ni dañ ko fee fekk suñuy suñ ñi nga xam ne ñoo ñu fi jiitu ci ko doon ko taxawal mooy bisu cant yàlla sant Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne tur woowu Cheikh moo ñu ko joxoon naa nag dañuy njëkk si cant yi ki nga xam ne nii moom mooy jëwriñ moral muy Sëriñ Mbàkke Madina ak mboolem ñoo xam ne nii kilifa yoo xam ne teew nañ di sant di gërëm tamit mboolem jullit boo xam ne nii teew nga fi ak mboole mbokk taalibe bi nga xam ni nii jóge nga dëkk dëkk ñëw yàlla yàlla fay la yàlla cant ndax moom bi nga xam ne moo am fay te mu nee na ku cant mu fay ko ñoo ngi xamal ni kat daayira moom daayira mu fàtte bi si daayira bu am solo la daayira boo xam ne nii Serigne Saliou Mbacke moom moo ñu moo ñu joxoon tur bi di Mafaatihul Bichri moom sosoo ba léegi nag vole yi muy dox mooy ñaari volet la mooy volet scientifique ak volet volet bi nga xam ne nii mooy jàppale nit ñi si seen wàllu diine ak bi nga xam ne nii ñooy jàppale nit ñi seen wàllu àdduna mooy xamalante bi ak jëflante bi loolu nag ñu ngi koy faral di wéyal saa yu nekk képp koo xam ni ñëw nga fekk ak génération bu ma di doon boo ñëwee si loolu ngay. fekk wéy ko ndax lépp luy def nañ si xam-xam lañ ko teg si xam-xam lañ loo xam ne képp ku fi ñëw tamit si xam-xam ngay sukkandiku si njàngaleem Sëriñ Tuubaa loolu jugu fi saa yu nekk ñoo ngi koy saxal di ko def am na ñu si gën a soññaan bokk taalibe yi ñu tënkuwaat si daayira bi tënkuwaat si li xam ne nii mooy charte daayira bi te xam ne daayira bi kat daayira boo xam ne nii tënkuwut si dara luy njàngaleem Sëriñ Tuubaa kon si loolu moo tax ñëpp ñoo képp koo xam ni ñëw nga si daayira bi boo fi génnee rek nga xam ni daayira bi daayira bu am solo na ñun nag yàlla daal def suñu borom dafa suñu borom dafa def ñu jiite bi nga xam mooy daayira Mafatihoul Bichri ndax daayira moom sosoo ba léegi depuis 1990 sëñ Salim Mbacké jox leen tur en 1993 daayira la boo xam ni bureau fait bureau cellule mère la amoon muy bureau boo xam ne nii si biir campus bi la nekk. am jëwriñ ak juróom-ñaari service yooyu nag ñoo doon sukkandiku di joxal liggéey bi bi ñu demee ba nga xam ne nii assi nañ ren assemblée générale bi nga xam ne nii defoon nañ ko muy le 22 janvier ñu dolli si beneen bureau boo xam ne nii moom lañ tuddee bureau fédéral boo xam ne nii mooy coiffé képp koo xam ne nii nekkoon si daay bi génn ak fépp foo mën di nekk rek si si si àdduna si àdduna si leen wax fépp foo nekk ci àdduna bi rek bureau boobu moom moo lay coiffé nga bokkaat seen koo si daayira bi donc bureau boobu doonu taxaw jàpp bureau cérémonial bureau cérémonial mooy bureau bi nga xam ne nii moom moo nekk fii si biir camp bi bureau fédéral mooy xam ne nii day boole ñu nekk si camp bi ak ñi nekk si camp bi ñëpp ren lañ ko taxawal suñu borom def tamit ma nekk jëwriñ jëwriñ yi naa loolu liggéey boo xam ne nii liggéey bu am am bu am am solo la ñu ñaan seen borom mu kattanal rek lépp loo xam ne yéen nañ ko liggéey suñ Tuubaa ñu àggal ko ak jàmm kon nit ñi xam ne daayira yi léegi noonu noonu la tëddee mu am bureau cellule maire mu ak bureau fédéral nga xam ne lépp ci gën a nan la ñuy def ba gën a yéwénal liggéey ak nan lañuy ñuy def ba liggéey bi gën a am am yoon ñu delluwaat rek di feddaliwaat ay kàdd cant ndaxte kat suñ ko waaye dañuy cant moom si ñett nañ koy def mooy cant xol bi ak cant làmm bi ak cant cër yi te sëñ Tuba moom matal na ñetti xeeti cant yëpp bis bii nag làmboo na tey moom ñett xeeti cant yooyu yëpp kon dañuy wax rek sëñ Tuba yal na yàlla na yàlla fay yal na yàlla fay bépp mbooloo moo xam ne nii wuy seenul si sant gi nga xam ne nii ànd na ko ngeen di sant yàlla ak sëñ Tuba ñu rafetlu waaye teewaay bépp guddi gi fi teew ñu nga xam ne nii mu ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu ñoo waroon a jiitu te mujj ñi nga xam ne ñoo ñoo waay daayira bi ñoom ban ban ban liggéey bi tàmbalee ba léegi muy bis bi ñoom kenn kenn toogut kenn neelut ñoom ñëpp ñoo ngi ci liggéey bi jàpp si ba bis bi taxaw ñoom dañ leen sant nga ne ñoom bis bi kenn dagg sa bopp kon yàlla yàlla fay lépp yàlla defal suturaal ñëpp ba képp koo koo xam ne li nga yéen si bis yow yaa xam suñu borom defal la nga am ko xam naa dañuy taxaw lu foofu rek di rafetlu jotaay bi di santaan mbooloo mi di leen wax ni gis nañ taxawaay bi ñi nga xam ni tamit ñëw ay université di ay délégation ñëpp gis nañ ko ñoo yàlla yàlla fay leen ñoom tamit ñi nga ni tamit ñoo ne si biir campus bi ànd ak ñun si liggéey bi nga xam ni lépp jaamu yàlla leen si jublu muy daayira yi nga xam ne ñoom la nekkal si campus bi ñoom tamit ñoo ngi leen sant yàlla yàlla fay leen xam ni ñi xam ni tamit nekk comme administration di waa rectorat di waa CROUS ñoom ñëpp gis nañ taxawaay bi lépp loo xam ne demal nañ ko jàpp nañ ko si kàttanu yàlla ñoom tamit yàlla yàlla fay leen suturaal leen ñi nga xam ne tamit ñooy ñooy cellules yi di cellule France cellule Dakar cellule Sànnaar ñoom ñëpp gis nañ liggéey bi gis nañ seen taxawaay si bis bi ñoom tamit yàlla yàlla fay leen kàttanal leen ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy waa bureau fédéral ñu yor commission yi ndax bureau fédéral bi ko waxee mooy bureau la boo xam ne dafa composé jawriñ ak sept commission ñoom ñooy forme comité directeur bureau boobu nag bu ñu waxee mooy bureau la boo xam ne day taxawal ay séminaire chaque heure bu jëriñ waxee day def séminaire day taxawal séminaire xool saytu nan la ñuy def ba liggéey bi gën a jógee loolu nag di liggéey bu am am solo boo xam ne yoroon nañ ko ba doon nañ ko tàmbali di ñaan seen borom nan la ba lépp loo xam ne bëgg nañ ko si daayira bi rek ñu gën a jëm kanam na ñuy waxat mboolum ñu gën a tànkuwaat farluwaat jàppaat bi nga xam ne daayira boo xam ni ku si dugg ku si dugg di nga xam ni dugg nga si loo xam ne ni si Tuuba moo ko boo xam ne moo ko tënk si xam-xam tënk si daaneel seen Tuuba tënku tënku tënku boo xam ni ñi nga xam ne dañ see duggoon sax te promotion numéro ba léegi ñëw ci ndax am solo gu am solo kon xam naa ñuy soññ na ko taxawal baato soññ nañ mbooloo mi sant nañ yàlla bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu